mbeeraa sama njaboot bi mbeeraa sama youth at fos tey dama xëy di woote suñu yaay yi nga xamante ne gellu yi da leen ñëw nax leen ñu jiital leen dugal leen ci li nga xamante ne understand ñu comprendre ñu lan lan ñu defloo leen li nga xamante ne expliqué ñu leen en tant que doomu àll te di doomu Sénégambia sàmmkat the protecteur action bu am bu ne damay def sama investigation woote laajte mag yi ñu jiital defloo leen li nga xamante ne ña leen jiital ñooñu expliqué wu ñu leen sa the but of li ñuy dem defi te leen du nax moo tax bu soo gisee ma def loolu woo maire ñu jot a jiital quelques maires ci ñoom gelu duudu yi ñi nga xamante ne duudu ka xam ñu ne duudu ka xaalis bu muy verser si ñoom summi seen tubéy seen xaas lañ dafa mel ni ka jox ele mu jox leen seen xaalis bu ñu moom ci li nuñ ko comme nu mu ko war a liggéey noonu dina summi seen tubéy mu fay leen seen propre xaalis parce que ñu tëb na di daal donc euh, Doudou ko comme que màccu doon la jaam la daf leen a joué yëfu jaam mais ñoom xale jigéen ñi bu leen Doudou Ka joué yëfu jaam bu ñu involve suñu yaay ñi nga xamante ne ñoo gën a xam lan mooy bëkkiin mère yooyu suñu mamaa yi ñoom ñoo dem jaay nekk ci tool yi si naakaas ñeneen yi nekk ci marché yi di jaay su baax ngoon di jëndal seen doom yi ay bigar fooy kaye jënd pétrole dugg ko ci làmpu tàmpi ki solal ko ñiy jàng te ñooñu seen doom yi ñoo dem am diplôme ñu mu nee dellu doon ay menuiserie ñi ay mécanicien fier jàpp seen jàmm di liggéey seen liggéey fi ñu ko gëmee di gañe di doylu ba ñoom jeunesse ba ñuy jël keroog jour bu leen atee mi tegalee date bu ñu war a jël réew mi ñu war ko liggéey maire yooyu dugg ñu ci internet bi xam lu xew connecté am ñu téléphone xam ñu li whatsapp xam ñu facebook xam ñu anything lu dul boo ñëwee fen leen rek jox leen ñaari version yoo xamanté bokku ñu lay bàyyi ñi tëb nga jiital leen ñi dem parce que maire yooyu tay ku leen nañ dem sàmm Casamance ñom ci sàmm Casamance la mais ku leen duggal ci propagande xam ñu xalé jigen yooyu nak gel duudu kay fu lañ yobbu maire quelque maire yooyu ñi jiital because liñu nane naan ñi ci ñun doomu Casamance xale yi ñu yen surtout yoo xam ne suñu ancêtres dañoo yen dafa am lu ñu yor yi nga xamante ñun du noonu la ñuy fayoo ñun du ñu fayoo ñun ñuy xale yi ñu benn xam dañoo yen ñun bu ñu demee ñu wax lu ñu war a wax kat def ak ku tooñ dina feeñ day dabe surtout nag ngeen jël affaire de fen propagande ko ci ña fa dem wax yi ñoom la conséquence yi di topp tuur bu ko woo soo ko woowee su jógee defi liggéeyam te mu gis ne danga fen du delloo du dellu noonu de tuur mooy de victory loolu la ateen mi teg loolu la insasta yi teg is the nature dafa naturel du fen du tooñ du dugg fu salte du lekk lu salte du laal lu salte tuur soo ko woowee ba yee ko gagnante la pour judul perdante isa necco képp kiy dem ci tuur day fekk nga am dëgg xale bu ñu benn du tooñ parce que puissance am ak pouvoir am xajul ci nitu neen donc soo leen jógee di def seen jeu propagande yi di neexal seeni far yi lu leen neex bu leen jiital suñu mamaa yi dañoo sonn ba pare dañoo liggéey fu liggéey war a amee ba léegi ñu ngi jaay caaf ñu nekk ci tool yi di jàppale seen doom yi pour seen éducation wala pour ñu xam donc maman yooyu boo leen munta ne merci wala ngeen delloo leen ñoom lu ñu moom bu leen utiliser ngeen dugal leen ci ëllëg gis yi bu ñëwee di daal seen kaw du ñu xam fan la ku ko yi ak ku tooñ dañuy fàtte ne am na ku leen naxoon jiital leen donc seen maman suñu maman yi bu ñu amee respect ci yéen ngeen delloo leen boobu. yen boo ni lak sen tour ngeen lak sen bop parce que dem dugul sen bop fi nga watou dug mais bu len invoque suñu maire yi parce que tey plus de 10 maire dam leen xamé xam ne dugg ci passe Doudou Ka man la Doudou Ka commentaire bobu ngeen gis sen passe man la ma len tegal retane yoy parce que dama doon def sama investigation parce que da ngeen laal fu ngeen am da ngeen ag sama terrain sama all ngeen dug sama ndox ba pare bala ngeen ni pousser ma nar a gaañ ñi nga xamante ne innocent lañu damay njëkk def sama liggéey comme ni ko enfance yi laajtee naa woote xam laaj leen gis ce que xam nañ li ñu def ndax ba ñu jóg di dem defi xam nañ wax ne leen li ñu dem defi mais li ñu ne ñoom xamuñu donc ko xamul wax la moom ñoom xamuñu fi li leen jiital ca nga duuti kay data duudu kay comme ñoom nguur dafa lañu indi ñoo leen nax fen leen wax ñu leen dëgg ñu topp ci rek di yuuxu donc pour xamal leen man sama yaay sax dama ko woo tey tey kañ la bar waa tey laa ko woo dama ko woo pour laaj ko xam nga lu xew parce que bañ naa ko jënd naa ko télé boo xam ne smart smart TV la day dugg YouTube day dugg léegi di xool fiis bu di xool lépp ma xam parce que bëgguma ku ñëw nax ko ne ko liir laa mu sama yaay moom depuis bu ko sama papa takkee mii dina xam nañ ko ñaami baaji mu noppi mi moom doomu buur la bu noppi bu làkkutu héritage am dafa gudd ci setu mbun mbun yaanaay la sama yaay bokk kenn xam ko dañuy dégg ñaami baaj rek mais doomu buur moo toog noonu ne pat yaayam moom kese la am lu do lu nekkoon ci moom moo nekk ci man maa jël lépp pour muy xàmmee lu xew du wax nag ba mu sëy see à l'âge de 14 ans jox ko sama pap Medina boobu luñ ko xamee ñaami baaji borom kawri guddi ba ci taat bu génnee dañ ko doon dañu taxaw ci escalier ci immeuble yëpp di ko yund bugg mu xam bu kenn fekk wax ko loo ko wax de wala nga wax ko doo def may woo donc moo bëgg jeunesse bi ku ci nekk surtout ñu nekk côté Casamance ñu xam ne kii noo foofu la nekk nañu bàyyi attention suñu yaay pour ñuy xam wat si wat pour yi mel nii bu leen ci dugal parce que ñun xam nañu bu kiin lu muy def parce que maire yi dem tey ñi woo bu bu dee bu kii boobu tey ñun num ñu ko delloo ko xamal ko carrément lu leeral ko da dara la du def sax du yëngatu ñoom li ñu fa doon def propagande dañu fen bu kii na du yëngatu lu ñu fa def yëpp daal du am parce que bu naree am ñoom lay gaañ suñu ma yi ay innocent dañoo jur ay doom donc bu kiin bu ñëwee bu commencé attaqué day attaqué au entire famille du kenn bi ci parce que dañ ko tooñ woo ko pare ndekk fu mu jëm foofu ñoom la leen ni gaañ si donc ñi ngi ñaan ñun tamit doomu tuur yi ñu ngi yem ñu ngi ñaan ñoom fu ñu dem noonu fen guñ fa yóbbu googu fen boobu du déclenché sax du ñëw ci ñoom sax parce que bu naree dal ci ñoom am na ñu muy innocent yi muy laal yi xamante ne bëgguñu mu laal leen xamuñu woon. donc jeunesse bi ñu nekk Casamance yëpp maire yi ak fu ñu mënta nekk na leen fexe ñi maire yi connecté ñi xam. ku len ñew wax ci yi fay da bala ñuy yëngatu quoi que ce soit nañu xam lu xew ga caga kay yoy data kay yoy data nguru ay po yoy ñom ami tamba ak sen clip man la dragon vert may wax ay yeen encore ami tamba yéen ngi soga a xam dañ koy ak leket man lool la bëggoon man doomu allah ma bëggoon bépp doomu Casamance yi nga gàddu sa kër la ak leket ka kare nag naf seen per yi ak seen sëriñ ñëw li ngeen takk parce que loolu mooy suñu wéerukaay protection la fépp fu doomu Sénégal bi mënta nekk yaa xam ci xet boo mënta génne sëriñu li suñu symbole la suñu sëru maam la takk leen ko ngeen wadd takk seen per yi protection la léegi ami Tamba gis na ya sa groupe boobu gelu Doudou kay data Doudou kay kon que yeen da ngeen beug sam a Ka c'est normal nit boko beugé dang kay sam sàmm mhm, man lool la beug parce que beuguma ñi perte ben dom Sénégambia parce que ba tey Sénégambia parce que dama beug dekk bi gëna fess parce que actuellement fi dem ni ci aduna gi ni am na ño xamantene ne mënatuñu jur ay doom ñun ño wara développer comme ni suñu ancestors yi défé jamono ga leen doon violé kenn ci ñoom dafa wax ci jigéen yi ndëgëm bi leen di violé ñi taxaw di bañ di dañuy di ñu rey leen te bu leen reyee population bu ñu war a ñoom maintenir mooy protéger der ñun marron yi pour ñoom ñu am ay sët seen yi war a histoire bi ñu honorer histoire bi buñ fi nekk ne dañoo waxante seen biir nañu accepté bu ñu fekk la violé nañu ñi bàyyi ñu veillé ku ci jur doom nga nàmpal ko uuf ko moom ko ñun ci mission boobu la ñuy jël dañoo hérité suñu ancêtres yi seen baat ñun amuñu kolo amuñu xeet dañu bëgg Sénégambia gën a fees parce que at the end of the day mooy feesal fépp donc mérité wuñu bëgguñu ñu ma ñu ñàkk kenn wala ñu perte kenn ñoom ñëpp lañuy sàmm. léegi yéen ami Tamba seen gang boobu man Taaso Afila Diop Aline Sitoé Aline Dusoye Kuyito the ancestry voice of peace bu ma organiser bi ñëw na man invité naa la yéen ñëpp pour sàmm képp ku xam ne doomu Casamance bi nga bëgg ci sàmm ko nga bëgg invité naa leen keroog seen këll yooyu ak seen lekket yooyu nga ñëw fekk si ma bi ñoo na pour ñu sàmm ñëpp homme de yi suñuy doom lañu civil yi suñuy doom lañu militant yëpp suñuy doom lañu dañu bëgg xeex bi mu nekk xeex jàmm maximum waaye bu dee ñeent nit lañu jàpp tàkk leen bu mu dëgg pour ñu yàq dëkk bi ñooñu ñaan ñu sa ñu gis fenn ñi gumba léegi yéen da ngeen ma ñëw fekk si maa leen woo Ami Tamba gis naa sa waax yi métti ak say xef yi ëpp di waaxu di xataraayu hmm. bu kii na booy xam moom doo xataraayu léegi nag ma dem leen woo pour ngeen ñëw ngeen ñëw parce que jàmm Sénégal bi moo ñu soxal ñu ñëpp dañuy dox jàmm fu jàmm amul doole du fa am duudu ko soxla na doole ci yéen. pour mu mën a continuer jëf gu ñaaw gu muy def soxla na jàmm ci yéen pour mu mën a continuer jëf gu ñaaw gu muy jëf léegi ñëw leen wuy si ma waaye nag encore ci beneen bu may wax sama yaay yi nekk côté nord ak suñu pàpp yi seen doom yi ñu jël solo leen toni te xamuñu ni niñ koy solee xamuñu guerre xamuñu xeex ku ci gisul sa doom jëlal sa tàngo utti ko nga laajte ana say doom ku ci mën a récupérer sa doom rawale ko parce que am na ñi ma ci jot a woo am na ñi ma ci jot a woo depuis weer bee passé jot naa ñetti appel mais ku ma woo ku ne sa numéro bu affiché wala nga wo mo waxa man amna underground check mu amat ñet ñu ma woowaat encore am tam ñaar yu mo mu safé ñaata lañu ñoom neuf xalé ñu xamé da leen solal toni tek leen mission bi nga xamé xamuñu ko lu tañ indi leen dañuy déglu kon ko dañuy déglu nit ñi di wax ci internet dem ba xamé ni ke ñom fi leen indi ñom xamuñu fi lu leen indi won xamni ñu bi dara sante ñoom nag sama baat benn la ci ñoom nee leen suñu génnee fu ñu leen yóbbu dina leen rey parce que dañuy def exception ne xam nañu lu xew li ñuy def mooy nañu ne tekk ñu des fa dina am jamono gi nga xamante ne bi leen génnee pour de parce que homme de tenue comme leen a masqué contre vrai homme de yi loolu mooy rebelle camouflé ma xam leen léegi rebelle lan mooy rebelle pure ndax rebelle bu nga xam at bi nga xamul bi ma xam ma ma gënal bu ma xam newul da leen ne woon Casamance la rebelle yi nekk ñu rebelle yi suñuy frère suñuy sœur ñun ñii doomu Casamance yi ñun ñii les rebelles de la paix ñu dañu waxtaan ak suñu frère yi suñu papa yi suñu maam yi pour ñu ne ñu ne laisser tomber parce que ñëpp benn lañu. léegi yéen waa noor yi am ay rebelle camouflé xam ne xam loolu bañ jël seen doom yi di leen sacrifice te xale yi ci boppam ñu ngi woote wollu mais lu mu leen wax benn la ku génn fi nga nekk démissionné dañuy dagg sa bopp. bu ko bu leen ko sa jëm sama njabot gi fi len solo ay toni indi len formé len ku ci démission da lay ray dañu dag sa bop té bëgguma pert kenn ci yeen ba tay Sénégal bi amoy gagné dañu dem avec smartness dess len fofu sol len toni bi bu len yobé nenen li la ndaxte armée moy fajal bopom fullaam ku len ni manipuler dinañ sono yóbbu ci li ngeen xamanté ne xamoo ko surtout nak mu nekk gradé waat ci fu mu ko war a waatee nar a suivre ay yi nga xamante ne ay mission yu clair lañu ay ordre yu clair pour protéger population bi benn nit mënoo yàq der téeméer nit non seulement ba armée ba jógee ba involve seen bopp ci liggéey bu salte invité wu ñu suñu jàmbaar yi nga xamante ay casé seen lañu pour ñu bokk seen diir ba seen deal demee ba éclaté feeñ nag léegi nag dañu commencé saboter sabotage mooy dem di laal waa Casamance di rey seen doom yi di def lu leen neex parce que dañoo mer bu deal bi feeñee Casamance ko feeñal mais bu deal bi bu ñuy tëgg seen deal yi waa Casamance tëgguñu ko donc da ngeen xoolaat bu baax balance bi nu mu demee waaye ba tey di xamal sama jàmbaar Casamance yi ba tey soo gisee lépp luy métti atee mit di ko teg tout le temps jamaat bu leen fàtte. lan moo tax ñun ba tey déclenché njàqale dem nañu guerre na yéen ni ngeen ni guerree ma wax leen lan moo tax def nañu tour du monde du Sénégal tour Sénégal lañu def usuy soo demee Saint-Louis lafar sëy ci jamaat ñii yaay ñii baay deret boo kër ga fëgg am na fa jamaat kër go fëgg direct jamaat fa jamaat mom la atemit utiliser jigen bob mo joxe idem ne nañu tëdd rek di jur di fessal jigen bob mo fessal adina donc ñun taxaw ñu ci position bu rafet pour ñu mëna taxaw légui dañuy xex fa mu yam neex ñun ñoy tak suñu benn tank lem ko ba mu dëgër ñu tëdd fi ñu tëdd di xex kenn du daw dañuy xex to the last minute waye waaye mi dafa am lu yenn ñun ñooy kati yi muñ kat yi ñooy kat yi gungé kat yi ñooy kat yi donc di xamal sama njabot policier yi ñi japp solal leen toni jox leen ay arme encore sen mama may wax yeen yeen mi ma wo bu leen démissioné bu leen resign dess leen fofu da ngeen déglu seen ñeneen ñi ngeen du sen chef yu leen indi pour ngeen sol toni pour ngeen def liggéey bu salte bi leen bëgg a liggéey loo te xamoo leen ko woon déggu leen ñi ngeen xamante ne drapeau Sénégal la leen ñor pistole nit a kay point foo ko jublu mu wuyu la yor ngeen seeni arme ku leen utiliser ci boppam defe ne moo leen gën a muus mu jàngale ni ñuy tiiree nit ki nag boo mokkalee boo moqalee comme dafa mel ni nga yor sa jéet ñu naan la yaay yaa moom jéet gi nag bi yaa koy njëkk rey yàpp bi yaa koy yëkk ñam ndax te leen formé pour tirer soo leen pare pour tirer ngeen essayé ko ci ñi leen formé bu dalee ngeen ne ko ah dama doon essayé rek ndax mbokkal nga jub nga loxo waaye des leen foofu de bu leen démissionné de bëgguma leen ñàkk ndaxte boo leen démissionné dañuy dagg seen bopp boo leen génnee fi ñu leen teg noonu dañ leen di rey des leen foofu waaye nag njaboot gi seen yaay yi. seen pap yi seen njaboot seen doom yi nga xam da leen jël ne leen formation da leen ay tenue pour ñu doon ay militaire wala ñu doon ay policier du loolu de ku ci gisatul sa doom toog ay at gisatoo sa doom jaru ngeen sono soog di gisee ma def mes vidéo bi pour alot maire ya ak bi ak sañu njaboot sama beneen njaboot bi nga xam da leen solol ay tenue te xamuñu innocent yi di ñëwaat encore ci suñu maman yi Casamance jeunesse bi xale yi na leen continuer ut ay portable di leen di jox ñuy connecté di xool comme nax yi mel nii yi ñoom ami tàmbaa def ak seen posé xef yi ëpp bu mu amati di xamal nag xale jigéen Casamance yi nekk APR. waa APR ñi nekk Casamance xaalis boobu ñu indi jox leen pour liggéey may ñu leen ko seen xaalis lañuy ñëw jox leen bi leen joxee seen xaalis atemit ngeen gën a muus li jël leen seen xaalis ngeen dem seen yoon bu leen ñàkkal seen bopp fayda meelo soo leen gisee ma ne meelo kooku sama si lankuras la kenn sama si lankuras moom moom bon wa sàmb la bëgg ci xolam meelo bon wa sàmb bu indee xaalis jox leen ne la meelo xaalis bi pour yéen ñii jiite topp gouvernement am xaw ma topp groupe am whatever may ñu leen xamal leen xale jigéen yi leen topp dëgg bi aadama ay ñoomi chauffeur Benoît bu ñu jox len ne len am len li may ñu len seen xaalis la donc seen yef dof doful yoy bokuma ci bëgg len nak wala ngeen ne yeen Koto la Dragon moy seen sœur rek da ngeen ko bëgg dañ len tek ci yef la ak fayda ñak fayda bëgguma ko kenn mayu len xaalis bobu yeen ko mom so len bëggee nak Benoît sambu mi yoro len nu bëgg dam kay wo bu défé lu rafet bu def rafet dam ko dé wo parce que doomu Casamance lañ ñëpp Sénégal bi moo ñor donc mélo fulla bu ma bëgg ci yow moy en tant que sama da def sa bop ndox té nga am fulla nga xam ni ngay taxawé di leen xamal yeen ñëpp encore ñun ay sàmmkat lañu vote spirituel carte spirituelle yi vote ñun ñoo ko yor kuñ ko joxul mënoo ko jël tan ko jox ñu la ko te suñu vote spirituel xale yi jeunesse bi lañ ko jox parce que jàmm senegal bi soo man may wax a yéen mais sama monde invisible bi ngeen gisul ëpp na leen donc xale yi ba ngeen wootee ba ñépp génn ci wuy ci leen ma bëgg ngeen def focus ci 2024 leneen lu ñu teg li nga xamante ne amul solo ku dem uti ba perte day làmbaat yàq des seen wax amatuñu débat amatuñu idée xalaatatuñu ndëgam ay yomb ci boppam moo wóolatul ña ko wër soxlawtu leen daf leen teg ñoom ñëpp foofu pour ñu détruire seen bopp ñu gën a exposer seen bopp ñu gën a def yi ñaaw moom mu ngi uti nu muy rëccee dara desatul xeex du am Sénégal guerre du am non seen wax ju bari jóg yépp di wa di def fii di créer fii di xool ni ñu def guerre du am xeex du am parce que Ayompo Macky Sall amatul droit beneen crime lu mu teg ci ay crime dafa bari day wuy ci après te wuy ji boobu nag moom groupe am la yoon ña war a wuy ji yépp ku ci nekk na yaa ngi xool ni ngay rawalee sa bopp ñom ñep ñi ngi xex même armée ci bopom dafa diviser armée bi diviser la bu yag l'armée est divisée ama xoolal dama am confiance ci armée bi tellement en tant que doomu soldat da leen honoré sama homme de tenue officier yi chef yi argent chef yi colonel yi dama kontaan ci ñom dama am ci ñom confiance tellement que dama fier parce que Arme bi. Vakad yo. Ki ofisi, polisi, militeri, jandami, marin. Vakad divize. Donk bo arme deme be divize non. Hale yi herbe mamotol enko. Arme bo divize yon. Bali de divize. Armi, pistola yi de divize. Chal do komba yi de divize. Kano yi de divize. Grenade yi de divize. Hmm hmm. léegi yéen fa ngeen ko téye jàpp foofu du tul ngeen yéen ñëpp xeex bi ba mu demee ba woo léegi de spiritual fighter fa la victoire bi gën a ràññee armée bi fu mu ne ni ak groupe bu nekk ñaar lañu léegi bu demee ba tollu foofu ñoom seen biir ñoom ñooy éliminer sa xeex bu metti bi yenn na ngeen wokk fëy xeex amatul guerre du am senegal bàyyi la ñu def ay bruit ku xam fa nga jëm di nga bàyyi la nga yuutu soo ndegam seen maman jël na temps ma doxantu ut la may ut wax la may wax déggante ak ñi ma war a déggante there's nothing need to yi ngeen waste seen temps concentré leen daf leen nekk leen soo seen maman yi di connecté ñi xam lu xew surtout Casamance. comme ça erreur yi melni comme gellu duudu kay bu mu am utiliser suñu mamay pour sen propagande te ñom dañu perte ba pare parce que suñu mamay mérité nañu leneen do do leen duggal leen ñi dem ci ba ki nag bi nga xamante bu leen attaquer def leen ni gañ gañ sen famille na leen protéger mère yi dañu mérité lu bari parce que bu ñu nit ñi jël nak suñu souffrance 40 ans xeex ngir jamm ñu jël ko comme arme def ko seen arme de politique parce que yéen gaa gis ngeen yàgg nañ ba ñu demee ba jeexal ci lañ jël léeg-léegi souffrance casasay li ñuy vécu 40 ans def ko seen arme politique te niñ ko mënta utiliser utiliser loolu taxul ñu ñu dellu ginnaaw tey la ñu gën a adoré la mot rebelle bañ na ko léegi xanaa gis ñu eh, da ngeen ni wan waa kii nguur ay yompoy rebelle camouflé date de naissance yi bees yi waa Casamance xale bu judd ci Casamance ñu ngi ko jox léegi tour en saison teg ci nag rebelle bolé ci santam budé dee gisoo date de naissance extrait de naissance yi ñi defar légui yondé yónnee ko nguur ayum yompo rebel kam fu ñi gis légui titre rebelle c'est à honorer té bu yàggee ñi na am yoon bu ñu war tuddé rebel rebelle les des parce que rebel ñambaté la comme ni suñu yi borom seri garti. ba am tour ñu honoré ko donc il faut ñu am monument des rebelles parce que njàmbaarte la victory la symbol of peace of bravoure so message boobu laa ñëw pour xamal leen tamit nañu encourager ñu dooleel si njaboot jeunesse bi nga xamante ne xam ñu dara dara dara ci armée soo leen toni am ñu formation xam ñu la moto yóbbu leen foofu jox leen arme ñu téye mais ñoom tamit teg kenn mission bu leen fa yóbbu leen utiliser psychologiquement tamit am nañu mission pour ñu leen utiliser donc sama bi ngeen I like that So di leen dafa di move forward Playing from iPhone.